problème bi yépp fofu la askan moy défar réew réew bénn du ko défar bénn groupe du ko défar waye il faut ñun ñëpp ñu déppo ci lan la bëgg ci réew mi nu ñuy def ba réew mi dellu ci suñu loxo ñun ñi parce que ñun ñi ñëpp gan nañu bi Sénégal yalla xam na ni li wa biti réew di am ci réew mi ci suñu kom kom ñun amuñu kom kom Sénégal téeméer bo jël juroom ñet juroom ñet fukki ak juroom wa bitim rew ñoko yor ñor suñu bank ñor suñu assurance ñor société téléphonie té yoyu ñooy ñoo xëcc économie Sénégal waye su yemoon foofu sax té ñoo yor suñu pétrole ñoo yor suñu or ñoo yor suñu zircon ñoo yor phosphate bi ñuy exploiter fi su yemon foofu waye léegi ñi ngi dag suuf ci di len jox ay hectares yi hectares ñuy bay di yop seen rew kon ñun gan lañu fi ci bir rew mi est-ce que tay bëgg nañu rew mi delu suñu loxo te bu dellu see suñu loxo problème yi ñuy jambat yépp jeex parce que parce que li fi yalla def ci alal bis buñ ko dellu see ci réew mi naataange am loolu moy coow li